<laughs> xam naa elle sera là d'un moment là d'un moment à euh, le temps de euh, jukki li nga xam ne ni moom moo di ëttu yéenekaay yi Seydina Omar Ba tey nag daa mel yi ñëw na wala ñëw. waaye ak ah. yu bari ñëw nañ tey. Ah, macha dama ko séen bu noonu. di bari hmm? <laughs> ah, kon léegi ñu ñu jàll ci wala. ah ci léegi léegi kon ñu daal di jukki li ëttu yéenekaay yi xëy fësal. mu ngi noonu alors euh, Sidna Mor Ba kon ñu dooree kook euh, Walf Quotidien bien entendu Walf Quotidien dafa xëyee dellu si waat ci lu jëm ci wàllu euh, régularisation parrainage yi fële ca conseil constitutionnel démb moom daanaka journée porte ouverte la woon noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale candidat ñu si bëri si ñoom jaar nañ fa démb

jéggi li nga xam moo di cap parrainage bi yéen kay gi moo xëy fësal loolee professeur Amsatou Sow Sidibé dañ ko mujjee réclamé moom daal la muy mooy ko ñu ko caution noonu la ko yéenekaay gii di réew mi xëy fësale soxna Aïcha doxantu ba ci bés bi lu jëm yeneen ak mm-hmm. gi ne ko finalement ñaar fukk candidat ak benn kon ñoom mujjee jàll parrainage bi lee yéenekaay gi mm-hmm. gi xëy dellu siwaat ci candidat yi la nga xam moom la war a jur ci koppar ci élection yi wax tamit ci ba Faye bi nga xam ne jàll na Aly Ngouille Ndiaye euh, Mamadou euh, Mame Boye Diao euh, ñoom ñi nga xam ay rebelle lañ ci Macky mujjee nañu jàll noonu la ko yéen kay gi xëy fësale ci jamono yu jëlee Mimi Touré Abdoul Mbaye Ndéné Sall Abdourahmane Souleymane Ndéné Ndiaye Euh, Abdourahmane Diouf Bougane Gueye Dany ñoom dañu leen mujj recalé wane ne kan mën a bokk ci élection présidentielle yi ñëw noonu la ko yéenekaay gii di bés bi xëy fësal 24 heures yéenekaay yéenekaay gii di 24 heures constance constance am maanaam Mamadou Mamadou Lamine Diallo ñëpp xam nañ ne moom fa mës a jàpp foofu la mës a jàpp mës soppeeku mhm. amaan loolu moo ko may tey mu jàll ci parrainage bi la noonu la ko yéen gi xëy fësale yéen gi ne ak ki nga xam ne moom moo di Mamadou Mam Mamadou Lamine Diallo euh, gannaaw mu euh, Sud Quotidien yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy dellu soir ba tey ci wàllu jëm ci wàllu contrôle parrainage bi la wax tamit ci candidat yi nga xam daanaka dañoo mujj a forcé par bi la yéen gi ne Idrissa Seck jàll na Malick jàll na Aly Ngouille jàll na maam booy jaaw jàll na a daal fukki candidat ak ñaar ñoo jot a jàll démb ci parrainage bi ci maanaam ci deuxième tour bi ku ci mel ni Rose Wardini mu yéen a fekk ji Anta Babacar Ngom euh, Mimi dañ ko mujj recalé mhm. Abdoul Mbaye moom jàllul Souleymane Ndéné Ndiaye jàllul Bougane Gueye Dany jàllul noonu la ko yéen a kaay gii di kon xëy fësale euh, Le Quotidien kon Le Quotidien a kaay xëy dellu siwaat ci loolu yi ne fu mu toll nii ancien euh, chef du gouvernement yi nga xam yéen kaay gi dal jàppe ne ay petit modèle dana xëy la leen duppee ndax ku ci mel ne Souleymane Ndéné Ndiaye moom jàllul Abdoul Mbaye jàllul ba ci Mimi Touré gi di le quotidien ci la xëy tey ji soxna Aïcha yéen kaay gi di critique xëyee dellu siwaat ba tey ci nga xam ay ancien premier ministre lañu te mujjee te mënuñoo jàll ci élection te mënoo ñoo kon jàll ci parrainage bi noonu la ko yéen gi xëy fësalee muy ku ci mm. mel Abdoul Mbaye ba ci Souleymane Ndéné jaay yéen kaay gi ñoom ñëpp mujj mujj ñoo bokk ci élection yi ilée euh, tax yéen kaay gi xëyte ji daal di amoon ab taxaw seetlu wax lan mooy problème bi ci ancien premier ministre yi euh, noonu la ko yéen kaay gii di critique kon xëyee fësale source a xëye dellu siwaat ba tey ci ñetti ñoo xam ay chef de gouvernement lañu mm-hmm. mu jëwuñoo jàll ci euh, ci ci parrainage bi le yéen gi moo xëy fësal lu ni mel ku ci mel ne nag soxna Aminata Touré moom dafa jàpp ne ne la fait mu doon xeex troisième mandat bokk na ci li nga xam ne ni euh, moo tax gaa yi xeex ko ba bokkul ci élection yi yéen kaay gi moo xëy fësal lu ni ne moom Mimi Touré bokkul Abdoul Mbaye bokkul ba ci sax euh, ak keneen ñeenteel mm-hmm. moo di Bougane Gueye Dany noonu la ko yéen kaay gii source ak xëy fësale soxna Issa ñu dem ci yoor yoor yoor yoor ne lu jëm ci contre parrainage bi deuxième tour bi la Bougane euh, Diomaye Bassirou Diomaye jàll yéen kaay gi la xëy fësal Bougane Mimi Abdoul Mbaye Abdourahmane Diouf ñoom dañu mujjee dañu mujjee recalé maanaam daal élection yi moom duñ ci bokk noonu la ko yéen kaay gii di yor yor xëy fësale. ñu dem euh, ci euh, l'évidence. l'évidence yéen kaay ne neexul ba neexul waaye ñi nga xam noo fi taxaw di xeex anti di xeex système bi.

docteur Abdourahmane Diouf ba ci ki nga xam moo di Bougane Gueye Dany noonu la ko yéenekaay gii di la tribune xëy fësale. ñu dem ci euh, xëy dellu siwaat ba tey ci ñi nga xaay élection présidentielle yi di ñëw waxi tamit ci Ousmane Sonko ak Bougane bi nga xam daanaka. dañ leen a mujjee évincé maanaam mujj ñoo bokk ci élection présidentielle yi ñëw yéen i kaay gi nag jàpp ne li ñuy xeex ci système bi bokk na ci leen ko yóbbee ci jamono jii dem président ma nga doon mm-hmm. seen kàddu dañu wax ne ne dañoo fas yéene manko wuti ndam li noonu la ko yéen gi xëy fësale moom président Macky Sall nag teg na ci table bi ne bés buñ ko édilaté Coupe d'Afrique bu baax dañ leen jox loo xam ne nii ci ndàmpaay mu maanaam mosul am Mm. ci ci ci ci. Euh, histoire football Sénégal noonu la ko yéen a kaay gii de la mandat xëy. las yéen a kaay. waaw le man las yéen a kaay tamit ci loolu xëy de le choix ah yéen a euh, daanaka dem moom dafa doon gañ suñu gars yi da doon leen di loo njukkal di dégg ne incha allah bu yàlla defee doon ñu indi Coupe d'Afrique bi fii ba daal dañ leen jox loo xam ne nii lu am solo noonu la ko yéen a kaay gi xëy fësale ci jamono ji yéen a kaay gi xëy tey ji di amal ab taxaw seetlu jëmale ko ci junóo gi nga xam ne mee ko nañ ko ci boulanger bu ñuy jàppee ne dañoo war a dem géréw ngir yokk njëgu mburu mi ñeneen ñoom nee ànduñu si yéenekaay gi di las ci loolu la xëy tey ji soxna Aïcha. ñu dem ci le soleil xëy dellu si waat lu ni mel Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 Macky de mu doon jàkkaarloog suñu gaynde yi yëbal ne leen drapeau bi laata kon moo di kañ euh, sàkku si ñoom aussi ñu def seen kéemtalaay kattan ba coupe bi des ci seen yoxo ndax te du ñu ko rëccu noonu la ko yéenekaay gi di la le soleil xëy fësale nañ jàpp ne kon suñu gaynde yi ki démb. ci ay vingt une heures quarante cinq la ñu àgg démb d'Ivoire mbooloo mu takkoon ñoo noonu la ko yéen a kaay gii di la soleil xëy fësale. yéen a gii di stade xëy dellu si waat ci kàddu yi nga xam ne nii capitaine Koulibaly yëkkati na ko nee na ñoom ñëpp dañoo fas yéene manko ndam li noonu la ko yéen gi xëy fësale yéen gi nag xëy dellu ci ndiggee diggee yi nga xam ne président Macky Sall digg na ko suñu gaynde yi lépp kon mu ngi ci yéen di stade soxna Aïssa euh, sunu làmb yéene kay xëy dellu ci Balla Gaye numéro 2 mi nga xam ne jamono ji ma nga ca France. ci mhm. INSEPS ba ci INSEP booba. Euh, di faray ba neexumaay figure baax a baax Seydina Omar Ba ci jukkib eh, yéenekaay ah, kon eh, moom Balla nekku fi mu tàggatu. Balla Gaye mu ngay tàggatu waaye xam nga tey ji moom làmb xewatul léegi football xew quoi. <laughs> fa la ñuy wax sax la ñuy wax de xam nga man fi mu ne nii moom. léegi <laughs> kii nii Modou Lo jël sama xel mi moo tax fi mu ne nii. léegi man ko wuti ndam lu ko war a songu rek la mais man Seydina d'accord ma quand même ci balaa ma wax ci ci man wuti ndam la dinaa ñëw. Hmm. ci léegi léegi mais Salma Ibrahima Fall elle vient de nous rejoindre également sur le plateau mère femme nuyu naa la sama yaay doom. oui sama yaay ñu topp ndigal rek def glow waaw def glow waaw def soft waaw koy bëgg daal dañ koy dañ koy laajte man lu ñu bëgg rek maa ngi ci maa ngi bu baax sama yaay doom di la mm. jox sa wàccuwaay di am mbégte di jàkkaarloog yow di ziar maire Rome moom itamit ci relax décontracté bi mu def tey. Mm. maire daal. dans son domaine. di ko ziar bu baax a baax noonu la ñuy ziaree téléspectateurs yi. Mm. ak ami internautes yi Aïcha aujourd'hui c'est mercredi. Mm. donc euh, aujourd'hui ce sera le tour de Pa Assane Seck dina dikk rek ñu waxtaanee ci actualité. tout à fait ak yu am solo incha allah incha allah maa wax nga ko mu teel a ñëw. waaw jour yi di rek. Ah. <laughs> kon nag ñu dañoo mën ci dagg émission. waaw mu noonu. <laughs> soo la ñu dagg alors sama tu es terrible alors euh, léegi léegi yaa ngi jukki bon ñu ngi gis nag ñuy def manko hmm? manko uti ndam li manko waaw uti ndam li man d'accord waaw manko des ak ndam li la ñu waroon wax ah manko des ak ndam li ba pare nañ changer slogan des ak ndam li ndax fi ne ndam li mu ngi si ñun waaw moo dégg naa wutiwaat bi mais wutiwaat bi d'accord ma ci man koo des ak ndam li la. Hmm. nañ des ak ndam li waa. Hmm. wutiwaat mooy loo loo loo ñàkkoon nga koy wutiwaat.

bu coupe bi dese seen loxo dana ma ja dana ma bett. ndax lan foo ko teg. waaye. sëriñ nee na d' accord. <laughs> waaw d' moom la déggoon la. la mu ngi question la rek kenn ku ne. wax dafa faible de. Ah, léegi léegi en tout cas daal mooy que man ñëpp ay sénégalais la ñu ah. <laughs> kenn ne da ngay supporter sa sa équipe. pour que vraiment déglu ma rek cest à <laughs> pour que mu gagné. Mm. mais man dama yàgg suivre sport. te dama yàgg di xool progression équipe yi. dëgg mais liberté wóor mooy la nga xam ne ni gis naa ko suñu équipe nationale bii bu coupe bi dese seen yoxo dana ma bett honnêtement. coupe bi waaw ah, bu dese seen yoxo bett trop. ok ah, léegi nag jarul ñuy dugg ba ci biir léegi nañu bàyyi ba ci kanam ñu xool. ndax Seydina Omar ba la mu waxoon. Seydina da nga tënk ci na am na da nga koo tënk ci dernier match yi ñu def. wala da nga koo tënk ci euh, kii esprit de groupe bi parce que bu dee esprit de groupe bi mu ngi fi woon. Euh, da ko tënk ci sélection bu Aliou Cissé wala da nga ko ci fan nga ko tënk ba wax ne que euh, performance yu ñu defoon en 2022 mënuñu ko amaat. ah mais en xam nga li la mën a xamoon mooy que day xam nga kenn ku ci ne da ngay chaque jour da ngay suivre équipe yi da ngay suivre Sénégal. Hmm. di suivre ay adversaires Euh, bien que Sénégal effectivement bu ñu waxante dëgg aussi mu ngi ñu ngi góorgóorlu ci seen euh, côté footballiste nga ñu ñu ngi góorgóorlu. Mm-hmm. Euh, mais man bu ma xoolee footballu Sénégal fi mu nga xam ne ni actuellement nii fa lañ ko limité jamono ji. Mm-hmm. nga méngale ko ak yeneen adversaires yi nga xam ne ni daanaka ñoom ñoo doon jouer ak Sénégal di ñuy progressé woo. Mm-hmm. man dama gëm ne te kenn ku ne ak sa gëm-gëm la ku ne ak sa gëm-gëm man dama gëm ne ne. coupe d' Afrique bii di ñëw. ñàkkul ne effectivement Sénégal mën na cee def yenn jéego yi. mais pour coupe bi des ci seen yoxo dana doon loo xam ne lu ma bett la bu amee. d'accord léegi nag pour wax la pour wax la actuellement ni Seydina Omar bi li nga wax fan fan nga ko teg. Mhm. naa ñëw bés décortiquer la ko. Mhm. naa ñëw bés décortiquer la ko. wax na la li ma wax ni fii ak fii laa ko teg. Mhm. parce que c' est pas la première fois ñuy seetaan coupe d' Afrique. c' est pas la première fois ñuy seetaan coupe du monde. effectivement depuis 82 coupe du que chaque jour équipe bu fekkente ne mu ngi ñëw rek ñu xam équipe bu nekk ak sa mais dama gis ne actuellement ni coupe d' Afrique bii di ñëw euh, ñu ngi jëm ci coupe d' boo xam ne ni euh, même bu fekkente ne Sénégal am na ay joueurs yu mag. même bu fekkente ne jeunesse bu Sénégal am na am comme ni koy gars yi am na am na am na am nañu benn genre homogénéité boo xam ne mu ngi am seen biir mais ce qui est sûr et certain coupe d'Afrique bii ah moom laay ñaan de Sénégal gàdduwaat ko quoi téye ko ci loxoom. mais en tout cas daal bu desee waat ci seen yoxo dana doon loo xam ne dina ma bett nag mais kenn ku ne aussi ak ni koy ak ni koy apprécier léegi nag coupe d'Afrique bi dina door xam naa ne fii benn xaw ma fii ñaari fan. Mhm. léegi ñu xool en tout cas ak lu ci mën a am soññ bi moom daañu ci dellu si gi moom am na ci solo mooy que on n'a pas besoin de de de de ay belle performance ay duut ak ay paas ak ay yooyu rafet yooyu ñun soxlawuñu ko lu soxla moom mooy duggal qu'il maximum de buts parce que à la fin on dira pas kan moo match match bu rafet bi mais dañ naan kan moo gagné et l' moom mooy gagné et dégg nañu aussi Sadio Mané Kalidou Koulibaly comme les autres aussi wax ne ñoom chaque match day nekk défi ci ñoom te loolu bu ñu ko defee rek yaakaar naa ne bañ a xeeb benn adversaire parce que xam ne jël na ko jëlati ko jël ko jëlati ko donc suñuy adversaire du pour rek Guinée aussi du bàyyi noonu mu sedd ay derby la yoo xamante ni daanaka équipe bu nekk mu ngi meññi te équipe bu nekk aussi am nga envie jël coupe bi parce que am nga yaakaar ne yow war nga koo mën a jël mm. donc chaque match rek c'est un grand défi et je dis que chaque match est une finale ba keroog ñu yegg finale loolu la Sénégal wala wax et je pense que joueur di def nañ wax nañ a garaaw mooy Sénégalais yëpp dañu dañu optimiste quoi mm. des fois da ngay jékki-jékki dem sur la terre ñu xool ndax Sénégal moo mën Gambie wala Sénégal moo mën Guinée mm-hmm, mm-hmm. c'est que yi bu ñu wax waxu supporter la ñuy wax mm-hmm. mais dama dama lay wax logique football gis nga Sénégal fa mu tolloon équipe yi nekkoon ci ginnaawam fii ak ak ak ak maanaam ak ak ak riir bi ñuy ñëwee. Mhm. Sénégal xam nga dafa nekk euh, au sommet. Mhm. gagné la Coupe mhm. yi liggéey liggéey bi ñuy liggéey actuellement nii dafa dafa dayoo. léegi nag Sénégalais actuellement ñu su bëri si ñoom gëm nañu ne coupe Sénégal moo mën ci Afrique ok Sénégal moo mën ci Afrique. mais li nga tóor Coupe d'Afrique bii di ñëw. man maa la ko wax man Seydina Omar te li xool bind ko téere Coupe d'Afrique bi bu desee si loxo Sénégal. <laughs> d' accord yow dinañ la vaar yàlla nañu jëlaat coupe bi ñu vaar la vaar bu am jom. ah dana bett. Euh, sëriñ euh, lii nii capté ko rek. s'il te plaît ñu def ñu teg ko ñu teg teg ko boole koog les larmes de de. te capté nga ko merci ne capté na ko. te au fur et à ñuy dem au fur ma lay tegal lan moo tax. wax la wax faaw ñu vaar la loolu si doon woon février incha yàggatul waaw. nee na si écran bi la lay boole vaar la vaar bu rëy sëriñ <laughs> ki ki participe à l'émission en direct alors au la sax de de de de remise de drapeau euh, national au lion du Sénégal hier en tout cas ci palais de la République le président Macky Sall magnifié seen kii mais tamit diggé na fa diggé bu rëy bu fekkente ne làbbal nañu mbir mi diggé yooyu aussi <laughs> ñu ngi koy xaarandi rek maa li am lu rëy rëy. waaw ku def lu rëy am lu rëy ku def am lu rëy. waaw maanaam lu mësta am daal ci histoire bi. ah coupe dafa defaloon leen lu rëy. defaloon leen lu rëy quand même. waaye defaloon nañu rëy léegi nag wéttan si rek nañu xaar loolu tamit mën na bokk aussi ci soñ yi nga xam ne war nañ ko mën a soñ Lions yi ngir ñu mën a dem. Mm. au delà de tout aussi euh, euh, Seydina Ba am na ay actualité yoo xam ne dabu nañu ba tey mu dem ci conseil constitutionnel ak euh, candidature yi nga xam ne ni jot nañu ko valider ñi invalider mais la grande surprise

gis nga la fait nga bañ bokk ci élection yi. sa ne veut pas dire que yow la nga doon xeex ba tey mënoo koo xeex. parce que moom nee li ko tax a jóg mooy jëlee système bi fi ne. te boo xoolee ci candidat yi nga xam ne yàlla nañu am na ci ay candidats yoo xam ne dañuy porter ay ay candidats anti système lañu. kon tey jii bu fekkente ne moom Bougane Gueye Dany la nga xam ne moom la wax da ko ñor. Mm-hmm. kon boobaa la nga xam ne am na ko ci doole ak ak lu mët mel. dana dem ànd ak benn candidat daal di koy dooleel su ko defee ñu daal di fiy jëlee système bi fi ne. kon affaire bi du question que ne man la affaire bi même bu fekkonte ne du yokk aussi mais am na si ñoo xam ne peut-être nga bokk benn idéologie peut-être yéen a xaw a nduru ay programme hmm. boobaa mën nga leen a jàppale lëngoog ñoom ñu dem ci élection. parce que aussi soxna ay naa la xamal benn affaire gis nga élection moo nekk loo xam ne tey jii benn nit mënu ko gagné si élection. benn nit ne man maay gagné élection mënta ne fii Sénégal. Mhm. Sénégal léegi pour nga mën a gagné élection foo ala kulli année moom benn ay coalition peut-être coalition coalition la. Mhm. te je pense bi que tey bu fekkente ne ku ci mel ni Mimi Touré recalé nañ ko ku ci mel ni Abdoul Mbaye recalé nañ ko. Mhm. ku ci mel ni Souleymane Ndéné Ndiaye recalé nañ ko ñoom seen biir. war nañoo xool par rapport ak candidat yi nga xam actuellement ñoom ñoo génn. kan moo nekk ñoom seen gis-gis ne bokk nañu ñoom idéologie su ko defee daal di koy jàppale. kon man damay rafetlu d'abord. grandeur Bougane Gueye Dany par rapport ak kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati ni ko yëkkati ni ko ni ko démb léegi nag question bi ñuy posé mooy lan moo tax ñu recaler ces anciens premiers ministres mhm. lan moo tax c'est quoi le problème lan moo tax gars yi recalé ay nit ñoo xam ne daanaka ay at ci ginnaaw dañuy jóge woon population bi mhm. yare gouver euh, programme gouvernemental bi di ko doxal léegi ñu dem ba ci biir ñu dem ci élection gars yi war a tànn ñu leen c'est quoi le ah benn ancien ministre dem na muy Abdoulaye Diop. te li ci gën a garaaw mooy que ñi nga xam daanaka ñoom la ñuy recalé c'est des gens yoo xam ne ni <laughs> mais dañu opposé pouvoir bi ah. farouchement. waaye parce que ku ñëpp xam nañ actuellement ni dafa taxaw tembe pour xeex ku ci mel ne Abdoul Mbaye ñëpp xam ne ne moom en tant que président Macky euh, moom yéenam ak bëgg-bëgg mooy jëlee moo tax kon ñu bàyyi kale ñi bàyyi ka ci des mu jàll maanaam Mouhamed Boun Abdallah la yu ñu war a mën a posé mm-hmm. mais de toute façon soxna ay soxna euh, man parrainage bi démb mun bu fekkente ne nañu plus de vingt et un candidats ñoom ñoo si génn mm-hmm. mais man jusqu'à présent ma jàpp ne 21 candidats dafa bëri te peut-être aussi conseil constitutionnel dana gën a seggaat ba au minimum ñu am même bu leen nu mu néew néew néew 5 ba 6 candidats parce que sinon bu fekkante defuñu ko rek lu jëm ci esprit parrainage kon biaisé nañ ko. ah mais mais mënul segg segg. léegi nag ba ñoo xam ne ils méritent de partir. waaw loolu la ma ne bu fekkente ne sax. Euh, léegi léegi su nañ tous les dossiers. am tous les parrains les parrains qu'il rek. bu ñu seggee segg ba xam ne actuellement ne xam nga actuellement ni parrainage lañ jàll. oui jàll parrainage ça ne veut pas dire que yoon nga bokk ci élection yi. parce que am na ay faux dossiers yoo xam ne waa ko récolte ko mën mais bien sûr. parce que si ay nit ñoo xam ne tey jii bu ñu waxante dëgg mais dañ am problème ak fisc yow ku ci mel ni Karim Meïssa Wade tey jii est yaakaar nga tey jii war na mën a jàll si élection yi d'autant plus que war war na mën a jàll bu mu jàll ci fekkee ne moom la mu amoon étape jàll euh, euh, remboursé wu ko kon cest dire que jàppal fii ba keroog muy sotti am na si ay candidats yoo xam mën nañu recaler mm. parce que dafa am ay problèmes yoo xam peut-être na ko seqal te ci candidats yi aussi am na si ñoo xam ne peut-être am nañ problème ak ak te a pour mën a invalider sa candidat mais ak lu am nañ jàpp ne mm. man jusqu'à présent la ma gëm mooy candidat 20 candidats wala 21 candidats dafa bari xamul tax parce que soxna ay Aïcha élection mm. dafa cher état bu Sénégal nee nañu génne nañu benn budget bu toll ci 14 milliards pour organiser élection. kese 14 milliards pour organiser te boo jëlee cinq candidats rek comme ni ko bés bu waxee 5 candidats rek daanaka mën na la jural mën mën mën a dikkee état bi cinq 5 milliards. Hmm. léegi nag isoloir yi ñëwagul urne yi ñëwagul confection bulletin yi ñëwagul deuxièmement si yow mi nga xam ne yooyu candidat pour que nga mën a bokk élection présidentielle yi il faut nga am benn moyen. gis nga élection nekkul lu yomb soxna Aïcha mhm. te la preuve ñun ñi nga xam ne ni ñoo demoon ci élection locale rek xam nañ ci dara parce que l' ensemble des de vote il faut nga am fa ay représentants. Mhm. te représentants yi duñ say militants kese ah dafa am ay nit ñoo xam da nga leen choisir pour que ñu représenté la te ñun da nga leen di fay. Mhm. xam nga bu njëkkoon ñu ngi doon fay un représentant deux mille cinq cent mais léegi représentants yi lu mu néew néew bu fekkente ne da nga nekk ci opposition bi di nga leen fay 5000 francs mhm. bu dee nag pouvoir bi nag jàpp ne 10 000 jàpp 15 000 lañ lay laaj. Mhm. à part aussi centre de vote bu nekk dafay am mandataire. Mhm. te mandataire boobu aussi da nga koy fay. mais bu weesoo loolu aussi centre de vote bu nekk da fay togg ay xéewal. te bu ñu waxantee dëgg Sénégal actuellement li fi nekk ci ay centre de vote en deux mille en en en en en dix neuf ñu ngi toll woon ci six mille et quelques. li fi nekkoon ci ay bureau de vote mu ngi tolloon ci 15000 et quelques yu ay bureau de vote est ce que tey jii yow yaakaar nga ne candidat yi nga xam ne ñoo commencé dégager tey am na ñoo xam ne am nañu mën-mën bi am nañu doole ji pour mën a ma fa matal fépp kon élection nekk loo xam ne ni lu yomb la mais façon ak lu ci mën tam ñun ñu ngi xaar waa conseil constitutionnel déterminé wu nee nañ la 20 dañuy envoyé man la ñuy génnee liste définitive yi. Mm-hmm. ñu sukkandiku bu mu génnee après su ko defee ñu mën a def suñu appréciation par rapport ak candidats yi. parce que fu mu toll nii vingt candidats ñoom ñoo génn nga xam vingt et un léegi léegi jusqu'à présent maa leen dégg jógee ba nga gis ku génn ci ci conseil conseil nga gis ko muy muy muy muy muy yuuxu. jubilé di jubilé mais. le fait que nga génn conseil constitutionnel sa parrainage jàll dañ jàpp ne taxul ñu bokk ci élection yi mais de toute façon ak la mhm. bu mbir yi jàllee maanaam bu pënd bi wuree bu boobaa nag ñu mën a accentuer suñu gis-gis ci yenn candidats yi. parce que suñu rôle nekk fi di jéem a campagnal ma sàmm nekk du ko campagne ma demba mais suñu rôle mooy gindi askan wi par rapport ak candidats yi. kenn ku pour ko defee sénégalais bañ a juum. parce que dañoo toll foo xam ne nii sénégalais yi dañu war a laaj dafa dafa jot changement am. Mhm. dafa jot sénégalais mën a gis seen bopp ci seen nguur. te loolu pour mu am waruñoo asaloo sénégalais yi. Mhm. il faut que ñu orienté xam leen ñoom fan la ñu war a teg seen tànk ba su ko defee ñu jub te euh, euh, euh, la ñu amagum mais segg gi des na. parce que faaw mhm. ñu dugg ci le fond des dossiers en tout cas. Mhm. mais am na ci ay candidats yoo xam ne nii quand éliminer éliminé leen ci wàllu parrainage ku ci mel ni Bougane. ça fait un coup d'éclat parce que ñu bëri nee nañu qu'il s'est investi quand même pour que euh, parrainage mu jàll ci ndax ça a toujours été peut-être bête noire am ndax 2019 mhm. dañ ko ci calé ak yeneen élection yoo xamante ni am na ci ci réew mi mu ci mel ni législative wala locale oui parfaitement Bougane et le parrainage moom c'est une longue histoire euh, mais malheureusement on a vu ce qui s'était passé hier te démb aussi gis nañ Euh, discours wala vidéo bi nga xamante ne def na ko ginnaaw bi ñu recalé dossier wam par rapport ak euh, euh, parrainage bi nekk lu nga xamante ne nag dañ koy rafetlu comme ni ko dinaa waxee parce que nag jamono ji changement la ñu a woote changement la ñu war a woote pas ñu koy focus ci nit mhm. pas pas ñu koy focus ci jëmm mhm. maanaam diw bu demul changement warta mën a am mhm. wala man maay dem sinon changement du am c'est dire que toi indispensable alors que normalement li ngay porté mu di projet bi looloo tax ma doon wax euh, la dernière fois Aïcha que Ousmane Sonko du bokk mais day bokk. Mm-hmm. Ousmane Sonko est mais il ne sera pas éliminé. Mm-hmm. parce qu'il doit peser ci li nga xamante ne moo di électorat mm-hmm. parce que nag depuis lors euh, par exemple Ousmane Sonko ci cas bii rek da doon wax que. Euh, comme comme su ma euh, déggee comme ni ma Salma boycotté dañ koy interdire ci élection boycotté. mais boycotté loolu mooy donner carte blanche au pouvoir. Mmh. boycott baaxul. boycott buñ ko defee mooy jox nañ carte blanche le pouvoir. Mmh. parce que tey jii ñu ngi wax ay nemmeeku nañ ay jafe-jafe tey jii ci fichier bi mais dama ne lu mu am ay jafe-jafe. Mmh. tant qu'il y a am benn électorat bu mag a mag a mag a mag une forte participation des sénégalais. lu ñu sàcc sàcc sàcc lu ñu luncu luncu luncu andi ay jafe-jafe jafe-jafe jafe-jafe non loolu day day day day def effet. day def effet donc que ça soit Bougane Gueye Dany Aminata Touré euh, tous ces candidats Ousmane Sonko tous ces candidats yi nga xamante ni nee nañu dañ leen a éliminer mhm. mën nañ leen a éliminer physiquement mhm. mais seen ay projet mais seen ay projet Aïcha dafa war a porter moom il est moom il est passé oui mm. Aïcha seen seen seen dafa war a passé moo jëkk a jàll non dama bëggoon Abdourahmane Diouf la Abdourahmane Diouf waaw je veux dire Abdourahmane Diouf moom il a été il avait ñun projet bi la ñu gëm mm. projet bi la ñuy porter damay kontaan mm. parce que ça au-delà des personnes qui les mm-hmm, mm-hmm. parce que projet boobu noonu lenn la mooy dëjëti fi tey ji système bi nga xamante ni Aïcha depuis lors sénégalais yi ñu ngi sonn mm. de mars 2021 à maintenant am na ay sénégalais yu bëri yu nga xamante ni dee nañ fi. Mhm. ay enquête ñu koy demandé. Mhm. seen famille sëngéem. Mhm. boobu ba tey amaguñu. Euh, lu leen leer. ci kan moo rey seen doom. de mars 2021 à maintenant am na ay sénégalais yoo xamante ni dañu blessé. di wëy ak ay laago. boobu ba tey xamaguñu kan moo leen def lii. de mars à 2021 de mars à 2021 maintenant. Euh, y a mille et quelques détenus politiques. et tu sais la dernière fois temps on a. éliminer Ousmane Sonko physiquement physiquement laay wax parce que mënuñu ko éliminer à vrai dire. Mm. parce que li may wax son poids dafa war a porter. mais quand on a dit que euh, jàllale wuñu dossier wam en fait y a des détenus yoo xamante ni c'est-à-dire grain d'espoir bi ñu amoon. Mm-hmm. dafa dem parce qu'il se disait que euh, après 2024 dinañu am benn espoir. justice dina amaat ci réew mi. parce que ñi nga xamante ne ñoo fi nekk di régime bi téye leen arbitrairement ñu fi jugee. ñoom dinañ réparer mm-hmm. justice mais jamono jii tembe ñoom ñëpp a sëngeem. Mm-hmm. c'est-à-dire jafe-jafe yi nga xamante ne Sénégal duñ koy dund papito kara bi mm-hmm. nga xamante ne day jëmmal tey jii l'immigration clandestine. c'est ça dëddu na àdduna. dafa nekk tant de point yoo xamante ni l'opposition bi mm. dañ ci war a taxaw def benn say mm. ndaxte booloo mooy doole mm-hmm. Mm-hmm. ça veut pas que diw demul kee demul rek mm-hmm. lenn la ñu war mooy sensibiliser jeunes yi ñu jëli parce que combat ça va au delà de ça mënewu leen leen jeunes yi nañu jëli seen ay carte d'identité ñi war a mise à jour mise à jour focus ci projet bi projet bi lenn la mooy xeex xeex système bi Aïcha focus de focus bi lenn la mooy xeex système bi ça veut pas dire que nag diw mooy falu wéy wala kee mooy falu le plus important c'est que cette injustice soit réparée mm. sénégalais amaat seen honneur sénégalais mm. amaat seen dignité espoir mën a naître mm. mu leer la ni yow sa doom bi nga xamante ne moom nga bàyyi sa kër gis bis bu jàngee ba màgg dina mën a jàngee fii ci réew mi tekki ci réew mi toog ci réew mi et c'est des choses importantes à pas l'essai effectivement alors euh, euh, euh, Seyd naa kon li ñuy tënk rek ci ci mbir mi moom mooy ne que au delà de tout mooy que même ñi nga xam ne ñu jàlluñu parrainage war ñu mettre à l'idée ko ñun on se bat pour nous-mêmes mais on se bat pour le Sénégal xool li nga xam ne nii naqari woon na la jëm ko fee jële mm-hmm. jële bi nag mën na xool gis ne kii kat méngoo ngeen ay bëgg-bëgg comme on le dit méngoo ngeen ay projet taxaw ngeen ay programme peut-être ngeen lëkkaloo ak ñoom est-ce que tey jii opposition bi warul mën a quand euh, euh, caytu xool bu baax a baax ne euh, dem séparément ça leur a jamais réussi et puis et puis c'est ça aussi moo nar war rekk seen problème seen mm-hmm. problème loolu la parce que actuellement dañu nar a dem en ordre dispersé mm-hmm. te dama lay xamal benn affaire mu leer gis nga seen candidat a bari gare muy gën a jox seen candidat yi lu muy gën a bëri muy def avantage candidat du pouvoir kon c'est-à-dire comme ni ko Sam waxee c'est-à-dire li ñu war a def d'abord mooy ñoom ñu xool naka la ñuy booloo nekk benn lu mhm. mu bon bon sax ñu am ñaari candidat yoo xam dañ leen porté ñoom ñu dem ci élection yi parce que nañ jàpp ci candidat yi nga xam dañoo jàll tey ji bu fekkonte ne dix la mhm. ma la ko mën a waxee mhm. jàppal trois kese ñoom ñoo fi nekk anti système mais ñi si des ñëpp dañuy wax rek mais ñuuluñu te balaa preuve la preuve mooy que dañuy bu ñu demee élection ba dem deuxième tour ci nga lay xam c' est des yoo xam ne ni ci ngay xam ne nekkati ñii kat dañ doon dañ doon rouler avec le pouvoir. Mm-hmm. kon c'est-à-dire opposition bi nga xam moo fi nekk tey di incarner mm-hmm. lu mu seen projet su ko def nii daal léegi ab soxna Aïssa li ma bëgg gëm la aussi gars yi xam ko mooy que vu bi ni mu demee tey ji man bëgguma ñu may gëm loo ne élection yi mën naa parce que man constitué naa candidat yi kenn ku ci ne xam naa fa nga mën ak na nga mënewul mais gis naa ne élection présidentielle yi premier tour mënu ci am. Mmh. loolu la ñu bëgg a mmh. parce que amu ci kenn si ñoom koo xam ne actuellement am nga doole ji war a mën a permettre à ce que vraiment nga dem premier tour ba ci sa candidat au du pouvoir. parce que yow munoo dem ci ay élection xaar ma ñëw yow munoo benn la. deuxième aussi dem ci ay élection yoo xam ne yow actuellement nii ñetti say adversaire yéen a ngi bokkoon pouvoir. Hmm. te bokkoon coalition mu ko ci mel ni ne Mouhamed Boun Abdallah Dionne l'ensemble des hmm. loo ko bon bon loo ko bañ bañ xam nga ne Linguère moom version la mu moo ko moom hmm. au delà de ça aussi am na ay nit ñoo xam ne dañ ko bëgg ci biir Sénégal Mame Boye Diao nee nañ mooy xaritu ndaw ñi mais tey ji est yow ñooñu doole ji ñu am tey dina mën a génne ci yow nga wax ne yow da nga jàll premier tour mante ne hmm. élection présidentielle yi amu ci kenn koo xam ne bun ngaa wat ne mën ngaa jàll premier tour puis premier tour mënu dafay am fii xam problème la la mooy que ñan ñoo war a dem deuxième tour la ñuy xalaat te nag bu doon suñu sago nag mu am opposition bi pure et dure bi maanaam pour opposition pure et dure bi hmm. dem deuxième tour hmm. parce que man li ma gëm mooy am na gis nga ñi ma ñi ñi ñi ñi fi nekk tey ci candidat yi nga xam ne ñoo fi jàll tey même bu fekkente ne 21 candidats la man dama gëm ne 17 yi wala saisi ñu si bëri sont ils avec pour le pouvoir mm-hmm. <laughs> te balaa nga ci xam dara ñu dem ci élection yi dem deuxième tour ñu si bëri si ñoom daañu def li jibookaa defoon dem si yàlla si dem en fekk ji pouvoir bi mais nag ba njuumte mën na am parce que volonté populaire day am bu fekkente ne population bi day jóg pour changer nga jékki-jékki yow occulter volonté populaire bi mm-hmm. nga ñëw di di xalaat say calcul politique wala ngay xalaat sa sa bëgg-bëgg bopp bu baa da ngay da ngay te boobaa nekk musiba mais encore l'essentiel ak lu ci mën tam mm-hmm. il faut gars yi dugal seen bopp nañu dugal seen bopp ne fii bi situation bi muy demee tey ji premier tour mënu fi am. mënul ah, ah, euh, premier tour moom premier tour moom man peut-être man baromètre bi njëkk bi moom bu fekkonte ne bari naa citoyen yi la Amadou Ba jàlle sax ma xaw a yaakaar ne ah. waaw. waaye nag collecté say parrainage citoyen ba mu toll ci 3 <laughs> millions 700 journaux yëpp xëyee ko nga xëy laal nànk say say parrainage euh, euh, élu ah élus locaux say parrainage say parrainage élus locaux <laughs> léegi nag ñun la question qu'on se pose mooy 3 millions 700 yooyu noonu fan la dugg. te yàqalaate bala. ndax dañ koo yàqal askan wi wala dañ koo jox njawoot gi. wala dañ koo séddale ci coalition bi. <laughs> loolu yëpp tamit. question bu ñu mën a war a poser la question <laughs> yu ñu war a mën a mën a poser la euh, Seydina Omar Ba bëggoon naa demit euh, dégg démb. Euh, yàggul waaw benn ponk rek parce que démb dama dégg quand même ci cinquantième assise des des médias francophones le président Macky Sall moo ko ubbi ca Diamniadio mu wax ne que le Sénégal am na authentique de liberté et de démocratie. dégg ko authentique de liberté et de démocratie. loolu actuellement nee na actuellement nii liberté seen liberté journaliste bi ne kenn salfaañewu ko. ko devant tous les quelqu'un et les quelqu'un président Macky Sall ko wax. <laughs> bon léegi léegi léegi nañu sur les faits. jeex na loolu la. ma dimbal la. non xaaral ma lim. lim rek waaw Salma génnal foofu. su bëggee ma limal fa da ngay génn foofu <laughs> doo wax. non bàyyi ko moom may naa jox bi limal. bu ko lan. <laughs> liberté Pape Alé Coro Maxu Mandela. ca kaso ba Serigne Saliou Gueye. ca kaso ba. Euh, Macky Sarr ñoom. ca kaso toujours en prison moom génnagul sax nag. mandat de dépôt yi. waaye mandat de dépôt yi kenn waxaalewu ko. Euh, liberté liberté euh, provisoire yi kenn waxaalew ko. yow bii rek ñu ngi lay xaw a joxaale citation directe démb ba tey ko fi waxaale. <laughs> waaw ma ni loolu lu mu liberté la wala lan la. ak beneen bi. Euh, mooy kii bi contrôle judiciaire bi. contrôle judiciaire Pape Sané. Pape Sané Cheikh Bara Ndiaye. Cheikh Bara Ndiaye. li mu. Euh, euh, kii oustaz bi oustaz Assane toujours en prison. prison ah ak d'autres yoo xamante ni xëy na sax ñun xamuñu leen. am na ci ñoo xamante ne nii dañoo rek fësal ay vidéo d'explication alors que explication yi ñu expliqué woon nañ ko waxal toog nañ ci plateau wax ko ba noppi muy la kaa dëkk. Karim Xurum Xaq mais liberté d'expression ci la ci la ci. li ma koy fàttali mooy que limal rek. moom si jëm bopp moo fi njëkkoon wax ne ne man sama nguur du ma fi tëj tas ko xibaar. loolu la waxoon de pour délit de presse. moom loolu la waxoon ne ne. ci ay délit de presse ay diffamation yi nga xam du ci tëj tas mm. am mais nañu wax ne dëgg soxna Aïcha ci nguuru Macky Sall lañ fi tëj ci ay taskati xibaar kenn xamul nu mu toll. Abdoulaye Wade même bu fekkoonte ne sax effectivement daan na daan na tëj mais la mu doon tëj ak li Macky Sall tëj ci diamétralement opposé mm-hmm. ci nguuru Macky Sall ngay jékki-jékki jël ay organ de presse tëj leen. Mm-hmm. mais Walfadjri gi ñaata yoon lañ ko tëj. ñaari yoon ci benn at. ci benn at. Sen TV ñaata yoon lañ ko tëj. tëj ko benn yoon nañ ko benn yoon et puis li gën a garaaw mooy et puis li gën a garaaw mooy agressé leen xam nga la mooy agressé mooy lan mooy imaginer tey ji un mag immédiat benn débat di défendre point de vue am mais li gën a rafet mooy bu fekkente ne yaa ngi dem ba di ko di ko jàpp mais xam nga moom këram mhm. xam nga adresse am mais lan moo tax tey ji mu jékki-jékki génn ci mbedd ma rek nga daal di koy gufaan daal koy yóbbu. dal na fi fii dal na fi Amadou Ba. Mm. mais am na ko mu dal fii ci buntu Walfadjri. Mm. yàggul balance lañ ko balance balance lañ ko invité mu mm. génn gaa yi jàpp ko. Mm-hmm. Mm-hmm. te loolu aussi dafa bokk ci ay liberté. Mm-hmm. xam nga dafa am loo xam ne il faut gaa yi di si bàyyi xel xam li ñu war a bàyyi xel mooy que gis nga nit ki doo jékki-jékki toog rek parce que tout simplement mbooloo bi wér nañ la rek ngay commencé wax affaire liberté. mais Sénégal tey jii bu fekkente ne xool nañu rapport yi Sénégal ni mu régressé ci wàllu liberté kenn xamul nu mu toll. kon tey ji président Macky Sall il n'est pas en pole position pour di jéem a incarner la liberté. fii mhm. Sénégal liberté de la presse amu fii. Mhm. Sénégal rek ngay nekk ab taskatu xibaar tey ji booy wax say mbokk di la moo di di di di di waxtaan ak yow naan la xoolal xoolal nooy waxee. Eh, parce que sa tànk que sa benn tànk parce que sa benn tànk ma nga kaso. Ah ci Sénégal gi la léegi avec ça un président de la République taxaw ne vraiment fii am na liberté liberté fii amu fii bu fekkente ne liberté am na président Macky Sall nañu wax moom ci ban liberté lay wax mais ñun taskatu xibaar yi sentiruñ ne am na liberté fii ci biir réew mi et puis c'est ça ce qui est dommage démocratie bi nag démocratie waxaale wuñ ko mm-hmm. ci ayam mm-hmm. ngay gis ay opposants yu war a toog pour manifester nga doon ko fi manifester ci ay bii laa gis ne ay opposants war a woote seen siège ci du jamais ay opposants war a daje seen siège nga yebal fa ay taskatu xibaar ne doon fi daje yéen. Mhm. fa ana liberté ba. moom liberté mooy koo xam ne da ngay génn benn émotif rek di ni kuy jooy ñu jël daal di guufaat yóbbu ci kaso wala muy liberté. wala nga poser question j'espère qu'ils n'ont pas tué mon frère. est-ce bu amee lu ko metti tey jii amul droit taxaw buntu pale metti lu ko mais tey jii buntu pale dafa xand et pourtant tey boo demee États-Unis c'est américain yi bu ñu amee lu metti dañuy taxaw buntu lu euh, ñu ko sax euh, euh, buntu Maison Blanche di ko manifester mm-hmm. mais Sénégal tey jii def ka danañ kenn benn arrêté Ousmane Ngom ba tey jii seen amul benn sénégalais boo xam ne am nga droit tey jii romb sax place de l'indépendance loolu liberté la nañ waxante dëgg Sénégal gi bu fekkente ni liberté am na fi dafa féete taxas genn wet xam nga liberté mooy kan mm-hmm. mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo toog wax ne ne Ousmane Sonko dañ ko war a rey ñu ngi nekk ci mbedd bi taxawal Sénégal xam nga ban liberté la mooy liberté bi nga xam ne nit ki dañ koy jàpp loxo ci poos muy def faux billet nga jël ko daal di koy bàyyi may liberté provisoire mu nekk ci dëkk bi taxawaalu kooku mooy liberté maanaam mooy liberté nga xam ne ànd ci pouvoir bi mooy koo xam dañ ko jàpp rapport mais kii xel xalaatu ci àdduna ñu koy jox ay fonction nga jël ko daal di koy euh, nga jël ko daal di koy. teg euh, sa conc. <laughs> waxuma la sax nga defal nga def nga def nga jël ko daal di koy def directeur maanaam nga jëlee ko kudd daf ko ministre de l'enseignement supérieur daf ko ministre de l'éducation nationale. Hmm. ci koo xam ne yow waa OFNAC dañu wax ne ne kii hmm. amatul benn fonction boo xam war na ko mën a gérer ci biir réew mi. loolu mooy liberté c'est-à-dire liberté am na mais liberté bi mu ngi àjjal ci ñi nga ànd ak nguur. moo ne ba ànd ak nguur loolu neex waxal loolu neex defal dadu la ci fekk. Hmm. mais il suffit nga ànd opposition bi non doo ko ah, liberté amu fi. kon président Macky Sall bu fekkee dafa liberté mais nañu wax ci ban liberté lay wax en tout cas ñun Sénégalais. ñu si bari si ñun sentiruñu ne Sénégal am nañ fi liberté. kon bu fekkee dafay wax liberté nañu wax ban liberté la. si ne nañu wax dëgg en tout cas euh, doy na waar ah. man moom c'était l'information bu nga xamante ni euh, war a ko mënoon a waxtaanee parce que man démb bi ma ko déggee je l'ai même noté authentique de liberté et de démocratie noonu la ko waxee le président Sall euh, mais nag le président on aimerait bien se poser certaines questions en parlant de liberté et de démocratie parce que léegi ay moo yu diis la yoo xamante ne nii sénégalais bi mënu koo yëkkati tey la xam te laaminam du dikkee parce que y a de ces nga xamante ne nii ça se passe dans ce pays et dafay salfaañe nettement la liberté et la démocratie et tout le temps dañu koy dañu koy dañu koy dégg Seyna vient tout juste de citer quelques-uns de ces euh, points yi nga xamante ne nii euh, daanaka dafay wane ne rek démocratie ak liberté des na fi am dafa am xeex bu ñu war a xeex te ñun xeexuñu mm. xam nga tey ñu ngi jëm ci élection présidentielle. Mhm. ay candidats la ñuy tudd. c'est d'où l'important système bi fi ne mais suñ ko waxtaanee mais tey ji président Macky Sall doole ji ko yàlla may tey ji wala président Sénégal président du Sénégal doole ji ko am li mu am ci pouvoir bi et muy kooku duñ ko waxtaanee. waaw ah, excès de liberté est-ce que excès de pouvoir. mais tey ji est-ce que tey ji yaakaar nga ne tey ji ku ci mel ni euh, Anta Babacar Ngom bu ñëwee mais pouvoir bi Macky Sall am moom lay amaat. day am pouvoir tëj am pouvoir tijji am pouvoir nommer. mais ku ci mel Pape Djibril Fall aussi bu ñëwee pouvoir bii lay am. Hmm. ku ci mel Mouhamed Boun Abdallah Dionne bu ñëwee pouvoir bii lay am. mais est-ce que ñun tey jii ñu jéem a toog waxtaan wala sinon ñu génnewaat assises nationales yi. Hmm. teg ko ci table bi su ko defee ñu imposer gars yi parce que ñu jëfee ko parce que fii ñu ngi dund situation bu ni mel dañ koy dañuy dellu si waat. éternel recommencement recommencement lay doon. régime présidentiel cest xeex bi ñu war a xeex loolu la régime présidentiel koy casser su ko defee mbir ñu yemale ko. Ah mais fii léegi actuellement ne ñun dugg ci loolu mais les trois pouvoirs gis seen bopp législative ak ma ne ma ne jëm ci législative yi ñu bañ a bàyyeeti la président di am euh, maanaam toog di tànn ña war a tey ci di ci assemblée ba c'est pas au président de dire kii moo war a toog assemblée assemblée nationale askan bi ñoom ñoo war a désigner seeni ay député bu tollee téeméer ñoom ñoo ko war a désigner bu tollee juróom fukk ñoom ñoo ko war a désigner parce que sénégalais bi dafa war a wax ne Salma mais ñu teg ci pencu ndaw réew man maa ko fa teewal mhm. suy wax ci mbiru jogoo wala muy wax ci mbiru situation dëkk bi wala dëkk bi da am fierté parce que da nga naan sama carte gi ma ko sànneel kat regretté wu ma ko mhm. parce que député bi mu ngi mhm. taxaw ci biir assemblée nationale ne man député Macky Sall laa loolu c'est grave alors que alors que l'Assemblée nationale le législatif dafa war a nekk benn corps boo xam ne dafa war a taxaw pour contrer bépp euh, projet de loi wala proposition de loi boo xam ne def nañu ko fa bu fekkente ne arrangé population bi ñu ne non mais projet de loi bu ñu fa teg wala proposition de loi bu ñu fa teg ngir di ko waxtaanee su neexee le président Macky day jàll comme à la poste loolu taxuloo ñuy wax Assemblée nationale bu ñu nee 2021 ba 2023 li ñu fi seetaan mooy nekk pouvoir lég pouvoir judiciaire bi dafa perte bu baax a baax a baax dooleem te li ko waral moom mooy tey mën nañ jàpp ne sax l'administration sénégalaise moo gën a am doole euh, euh, le pouvoir judiciaire loolu bu ñu koy wax kon léegi l'exécutif moom mm-hmm. mooy nekk au-dessus euh, de de de de de judiciaire mm-hmm. alors ko tey jii pouvoir judiciaire lu mu lu mu am mooy exécuter parce que du devoir suprême la war a nekk mhm. l' moo ma la preuve moom mooy ne que bu conseil constitutionnel validé wul le candidat de de Salma sa Salma du mën a nekk candidat kon ki nga xam ne moom mooy tab wala bokk na ci yi nga xam ne ni bu ñu dogalul tab gi du mat kooku yaakaar ne moom moo nekk ci suprême ñëpp la preuve moom mooy tey jii avril ka fay nekk njiitu réew pour mu prêter serment il faut membre conseil constitutionnel yi taxaw pour mu prêter serment mhm. la justice également ko war a joxaat dooleem ak dëgg-dëgg man loolu laa xalaat quoi sama xalaat la nag mën a nekk xalaatu keneen <laughs> mais dëkk boo xam ne dañoo ne séparation de pouvoir mais tey benn pouvoir dong moom mooy doxal muy l'exécutif ça aussi c'est une grande question boo xam ne war nañu ko teg sur la table et revenir encore sur régime présidentiel bi nga xamante ni tey problème bu ñu mënta am moom moo ñu ko indil l'excès de pouvoir bi nga xam ne jox nañ ko pas le président Sall mais hmm. président bi fi mënta toog fi rek wu ñu texte yi lii la ñuy dund ah pouvoir bu nekk waaye ça se passe fii moom benn pouvoir dafay am mooy pouvoir exécutif moom mooy li moom mooy nommer les députés. Euh, gis nga tey ji bu fekkonte ne bëgg nañu changement. Mm-hmm. man xaw naa lire assises national yi. Mm-hmm. peut-être du point yëpp la ñu war a mën a kii. mais ce qui est sûr et bu fekkonte ne gars ñëw nañu vraiment pour jéem euh, te te kenn rek laa dégg mu wax ko. ne tey jii bu yàlla defee mu jotee ci bopp réew mi dina ko faratee ne mettre en exergue maanaam mooy Khalifa Sall. Mm-hmm. même xalifa Khalifa Sall laa fi dégg wax ne ne. tey jii moom bu yàlla defee mu jotee ci bopp réew mi dana fexe bala nga xamul la ñu defoon ci assises nationales daal di koy jëfee mais à part ça gisuma ci keneen kew kew keneen ci ñoom da ko mais Sénégal mooy boo xam ne ni da ngay nekk président dëgg kii euh, député ki nga xam mooy mooy moo nekk ci pouvoir mooy chef de parti moom mooy moom mooy nommé mooy choisir ay député def listam kooku tey ji bu fekkente ne yàlla def na tey mu jàll dem ci assemblée nationale mais lu muy wax dafa naan may député Massamba wala député Massamba ma dem mais tey bu fekkonte nañu changer loolu mm-hmm. kon boobaa Sénégal peut-être na magistrature mais président waru fa siéger a siéger te ña fay nekk ci ay membres dañu war a bàyyi ñoom magistrat ñu déterminer leen xool ñoom kan lañu war a tànn pour que mu nekk conseil supérieur de la magistrature bu jaree sax ñu woote su ko defee même bu fekkente ne aussi bu ñu affectation ak nomination muy bàyyee ci conseil supérieur de la magistrature mais pas muy bàyyee ko ci ministre wala pas muy bàyyee ko ci présidence mm-hmm. su ko defee au moins justice mën a bon boppam mm-hmm. mais fii rek mbir yi ñu ngi concentré ci loxol président nga xam ne tey ku mu neex ma lay fal ku mu neex lay folli <laughs> mais situation bi la ñu moo tax ma ne coow li foofu la wax ji foofu la wax ji di ay candidat bi moo xool lañ def ba changé ko loolu mooy coow li. Mhm. te fii rek ñu ngi dund situation bu ni mel situa fi bàyyi lii fi nekk tey. Mhm. président bi am doole situation bi la ñuy dund et puis ça c'est que dommage. Aïcha dama am benn jàmbat s'il dama ko fàtte woon. Mhm. parce dem dafa am benn yaayu détenu bu ma interpellé. parce que doomam dañ ko arrêté depuis le 10 out 10 août c'est un xale bu ndaw la doon bay waaram. def tout donte xale la mais am jom. doon def tout ba. 6 mois déjà voilà 6 mois déjà depuis le mois d' août 10 août. ñu arrêté woon ko yaay mu ngi tudd Soda. elle m'a interpellé hier te boo ko dégg dégg Aïcha sa xol dafay jeex. Hmm. parce que nee na tailleur la woon dafa ñaw ba pare doon livré ji géejawaay la dëkk. Hmm. livré ji ñawam mais dafa dem ba amoo ba géejawaay livré ñaw bi ba pare si la jotee benn appel ñu ne ko que dañu am réunion il faut que nga ñëw. fi ñu ko woo ne ko fa nga amee réunion parce que Pastef la bokk. Mhm. fa lañ daan defee seen ay réunion fa lañ daan rassemblé wu. Mhm. amoo sis nee na ba mu ñëwee moom il pensait que réunion lañ dem mais fa lañ ko fekk ni ko nii tey. depuis lors mi ngi ci kaso bi di dund ay situation yu méttee méttee méttee yaayam ndekkatul naanatul njabootam fi mu nekk nii sëngeem nañ donc euh, euh elle a tout fait pour avoir mon numéro wax ma njàmbat bi e ñu ngi ñaan vraiment ci njekk mhm. Aïcha jeunes yi nga xamante ne dañu nekk ci kaso yi que ça soit à Rebeuss Sébikotane ak jigéen ñi nga xamante ne dañu nekk camp pénal sonn nañu. Mm. condition carcérale yi ñuy dund metti na. ni ñu leen jàppee doy na waar. parce que mm. bu fekkonte ne dañ ko fekk ci benn délit muy def loo xam ne yoon da koy tere sax on peut comprendre mais jàpp nit ci condition yu ni mel maanaam iri ko ba mu ñëw nga jàpp ko alors que tu sais bien que deful woon dara loo xamante ni mm. yoon da koy tere benn délit la am mooy bokk Pastef vraiment ëpp na. te lu ëpp nag tuuru. te euh, wayjuur yi nii ku leen yërëmul. war nga leen a mën a bàyyeeg seen ay njaboot ñi nga xamante ne ñu ngi taaba taaba di ñaw di def euh, liggéey bu ci nekk mm. pour mën a subvenir euh, aux besoins de leurs parents nañ leen bàyyi xel bu baax nañ leen bàyyi xel bu baax a baax en tout cas ñu a euh, mastaw bu baax a baax maman Soda ci li ko dal mm-hmm. di wax ne rek xibaar bi wala bataaxal bi yegg na fa mu war a yegg mm-hmm. parce que Salma quand même quoi qu'on puisse dire aussi y a un mu ngi fi toogal détenu yi rawatina soxna yi di leen kaasal saa su nekk jërëjëf ci information boobu la bi tàbbi ci noppi autorités ba ñu mën a euh, gëstu bu baax a baax ndaw yi nga xam ne ñu ngi nekk ci kaso gi du moom rek de y a pas mal de ah, jeunes yi nga ah, xam ne nii dund nañ situation am na ñu ma dégg ñu ne dañ leen a jëlee ci ay bërëbu may ga maanaam dañ doon te ku ci nga xam ne ne may ga reer bi daanaka ay oui oui man am na keneen ku ma ko wax am na si ñoo xam ne nii maanaam ay minuit 23h te xam nga booyi dañu tàmm minuit 23h dem may ga mhm. fal leen fekk ci biir may ga bi daal leen ramasse yóbbu leen boobu ba tey waxuñu seen dossier bu doon sax euh, saytu na leen ba daal di leen àtte ne lii ngeen def mais dañ leen bàyyi foofu noonu euh, gàdd rek bàyyum ndëggandiku te bàyyum ndëggandiku boobulee mën na nekk sax ay at mën na nekk 6 mois 7 mois 8 mois 2 ans sax nga génn ñu ne la defoo dara perteloo euh, xale bi notion perte loo ko énergie am perte loo ko liggéeyam malheureusement yu ci bëri sax bu ñu génnee dañuy perte carrément nekkinu société bi mm-hmm. dañuy préférer génn dem voyager wala ñu xool leneen lu ñu def mais du ñu xajate seen gox loolu yëpp aussi ah, ndaw ñi di ko dundu situation boobu lee mën na sax sax tax nga bañ a dékku loolu bu fekkee ne far nga fi ne da ngay préféré euh, dem exil gis nañ fi exil yi ñu fi nemmeeku yëpp fan yi wala sax jël ni yoonu Nicaragua bi wala yoonu gaal gi malheureusement loolu moom loolu moo am parce que c'est l'exemple oui c'est l'exemple de Papito Kara mhm. alors jaajëfal bu baax a baax Seydina Omar Ba ñu ngi jéggalu nag parce que normalement on devait euh, avoir aujourd'hui euh, qu'il est dit Alassane Ndour moom nekk secrétaire général des jeunes du village artisanal de Soumbédioune fas yéene waxtaane nag statué vraiment ci village artisanal de Soumbédioune mais malheureusement il n'est pas là mais bon on sait pas pourquoi de toutes les façons ñun on va euh, daal di observer une courte pause huit heures précisément Pierre-Edouard Faye sera là euh, pour euh, l'invité de PEF aujourd'hui il va recevoir Babacar Fall du CADEC comme on lui avait donné rendez-vous huit heures certainement il sera là huit heures dañuy une courte pause le temps de seeti as annonceurs yi et de revenir sur le plateau ñu fi defee yéena ngi ba tey